jërë ngeen jëf mbokki internet yu allo Sénégal gannaaw bañ leen nuyoo rek ñu daal di dooxaat ci seen acte du tey nag ñu koy daal di tàmbale rek ak actrice bi di Halima Gadji moom nag ñu gën koo ràññee sax ci yenn ci ay séries yoo xamante ni rek mu ngi daw fii ci Sénégal bokk na ci maîtresse d'un homme marié ak yeneen ci ay séries moom nag jamono ji muy dundu période yu difficile ba ñu jàpp ne sax dafa daal di am rek lii di feebaru xel moom nag gannaaw ab boo xam ne rek def na ko ci euh, page Instagram am moom Alima Gadji rek muy wax ne daal dinay liggéey rek lu toll ci fukk ak ñeenti weer euh, loolu nag muy nekk matin midi soir nekk ci ay tournage yoo xamante ne ni du jeex daal di respecté rek li nga xamante ne moom moo di heure ba dafa jàpp nag ne yenn ci ay euh, jafe-jafe yoo xamante ni sax daanaka ñu ngi koy teg ci ndoddam ba daal di koy jàppee sax ab dof moom Alima nag muy xamle rek ne moom dara dalu ko naam sax am na ay période yu difficile yoo xamante ne ni mu ngi koy traversé waaye rek mu ngi def kéemtalaay kàttanam loolu nag gannaaw ab publication sax muy xamle rek ne je fol folle amoureuse d'Allah loolu nag di nekk ay kàddu yoo xamante ne ni sax moom daal dina koy fësal rek ci page Instagram am ñu daal di wéy rek ci li nga xamante ne ni moom moo di seen actu du jour gannaaw ba nga xamante ni sax daal dinañ koy teg loxo rek. Euh, ñu bëri sax daal di jàpp ne yoon dafa dal di jeng ki nga xamante ne mooy wuyoo ci turu euh, Cheikh Omar Diagne euh, grande offensive du Colicode nag daal di na ñuy nañuy rek bëgg def ab dox ñaxtu rek ni ki aljuma fukki fan ak ñette ci weeru mai loolu nag gannaaw bu ñetti waxtu ci ngoon na jotee rek foofa ca Dakar dal di amal rek ab marché rek ngir ñu daal di bàyyi ki nga xamante ne moom moo di Cheikh Omar Diagne depart ba nag ñu ngi ko daal di app rek ca rond point bu université Cheikh Anta Diop. Ndakaaru daal di teeri ji rek ca poste bu Médina ngir rek nag daal di ñaawlu sax li nga xamante ni ràññee nañ ko bu baax a baax muy wàllum agenda LGBT te ñu daal di ci tudd sax ay borom ñaari tur ak linimel wéyal seen xibaar actu du jour rek ak doomu ki nga xamante ni sax dañ ne doomu titi la muy Fanta moom nag daal dinay nekk jigéen bu rafet lool gannaaw ay photo sax yoo xamante ni daal dinañ koy fësal rek sur la toile mu nekk ay photo yu taaru lool moom Fanta nag mu nekk sax ab doomu woykat bi di titi daal di feeñaat rek gannaaw ay sañse yu rafet yoo xamante ni daal dinañ koy publier wax rek ci euh, leneen nag bi yoon dañuy daal di euh, tabbi rek ci euh, coowal réseaux sociaux yi ak ki nga xamante ne moom moo di njiitu réew mi di Macky Sall kàddu yi nga xamante ni sax yëkkati na ko rek ngir ñu daal di réguler waat li nga xamante ne moom moo di réseaux sociaux ba tax sax ay vidéo di circuler rek am nag ñoo xamante ni ñu ngi yëkkati ay kàddu naan ku xamul buur saay na ñu ne la buur du ma ci àgg waaye nag nekk na ay kàddu yoo xamante ni yëkkati nañ ko ngir rek daal di ñaawlu rek coow loolu nga xamante ni sax daal di nay judd woon gannaaw ba nga xamante ni kii di njiitu réew mi di Macky dafa jàpp ne rek réseaux sociaux yi euh, dañoo nekk rek ay lieu boo xamante ni nit ñi dañ ciy jaare di saaga gouvernement bi di wax naka sudul noonu waaye nag gannaaw publication yi nga xamante nii def nañ ko rek ñu xam ne média yi sax dañoo daal di jeng ak ki nga xamante ne moom moo di Macky Sall ni mu xojee li nga xamante ne moom moo di média yi ba tax na sax réseaux sociaux yi ak yenn ci ay site internet nekk na ab yoon boo xamante ni rek ndaw ñi mën nañoo jaar ngir wax seeni soxla dañuy daal di wax rek ci suñu yaay ji di Kiné Lam gannaaw ba mu amalee ab grand théâtre am daal di euh, wëy rek euh, wëy yu neex lool mu nekk nag grand théâtre boo xam ne daal dinay euh, réussir lool moom kii di mama Kiné Lam nag daal dinay rek jot lu toll ci fukk ak juróomi million ak bracelet ak bracelet or bu euh, toll rek ci valeur juróomi million ak benn woto boo xam ne rek daal dinañ ko koy jox loolu nag mu nga xew woon foofu nag ca King Fat Place gannaaw ba nga xamante ni sax mu ngi fa doon amal ab soirée. Mame Mactar Gueye di jiitalu ONG Jamra daal dina yëkkati rek ay kàddu ci li nga xamante ni sax moom moo xew foofa ca Dubaay loolu nag mu ngi nekk rek ay jëf yu ñaaw yoo xamante ni nemmeeku nañ ko ba na sax moom Mame Mactar mu daal di dellusiwaat rek ci coow li nga xamante ne moom moo am foofa ca Dubaay di wax rek xale jigéen ñi li nga xamante ni ñu ngi ko fay dund bokk na rek ci daal di sa yëkk ay naar waaye tamit euh, nekk ci li nga xamante nii rek moom mooy euh, di euh, lekk li nga xamante ne moom la naar yi di génne muy seen li ñuy demee douce rek. enquête bi suñ ko génnee euh, jigéen ñi nañ koy lekke muy expliquer ci vidéo bi rek bu baax a baax li nga xamante nii sax euh, noonu lay demee ndax kat euh, yenn ci ay naar sax dañuy ñëw rek di proposer xale jigéen ñi ne ñëwuma pour tëddee la wala lenn lenn rek laa lay proposer mooy su ma safee dem ginnaaw kër am na lu ñuy wax sax constipation bu leen dalee am na benn produit boo xamante ni dañ koy naan ngir mën a dem douche rek léegi bu ñu naanee produit boobu nag dañuy toog lu toll ci fukki minute bu ñu toogee nag lu toll ci diiru fukki minute xale bu jigéen bi dafay daal jaaxaan na ñoom naari daal di eh, demee duus ci gémmiñu xale jigéen yooyu nag ba noppi xale jigéen yi sax daal di lekk li ni mel mu nekk ab jëf ju ñaaw nekk ab jëf ju salte ñu daal di eh, wax rek ci eh, leneen bi yoon nag kenn koo xamante ni sax mu nga foofa ca biti réew di nekk sax ku ñu duppee borom ñaari tur yi di wuyoo ci Pape mbay moom nag daal dina yëkkati ay kàddu rek ci li xew foofa ca Dubaay gannaaw ba nga xamante ni sax nemmeeku nañu ne jamono ji Dubaay moom moo lëmbe réew mi yëkkati ay kàddu rek daal di génnewaat yeneen révélation yu bees dañuy daal di wax rek ci euh, wàllu tàggat yaram ak défenseur Sénégal bi nekk foofa ca diwaanu Napoli di euh, Kalidou Koulibaly nekk capitaine gaynde moom nag daal dinay yëkkati ay kàddu rek fësal ko ci ñi nga xamante ni sax ñoom la ñu duppee bi nationaux moom nga Kalidou Koulibaly nag gannaaw publication bu mu def rek muy wax nekk ne bi nationaux yooyu bu ñu hésité benn yoon nañu tànn ñëw fi nga xamante ni moom moo di sélection équipe nationale ngir rek daal di fi football loolu nag mu nekk loo xamante ni sax moom Kalidou Koulibaly daal dina ko yëkkati ne bi ndaam sax nekkul luy yomb waaye moom nag dafay ñaaxaata bi nationaux yi rek ne nañu ñëw réaliser seen rêve te ñëw fi nga xamante ne moom moo di équipe nationale bu Sénégal. mbokki yi safoon doon ñu teewlu ci seen chaîne Allô Sénégal lii lañ leen andiloon seen acte jour di leen ñaanal jàmm di leen wax nag ngeen wéy di ñu topp rek laal cloche notification bi ngir bañ a dara ci suñu information jërë ngeen jëf.